bismillahi alhamdulilahi wasalaatu wasalaamu ala rasulillah xasbiya allahu inna waliya allahu wa ma tawfiqiya illa billahi la hawla wala quwata illa billah mbokk yi ñuy topp ñu ngi leen di nuyu nuyoob lislaam ci njëlbeen ak sunu jotaay di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu di leen ziyaar leen ndokkeel ci weeru koor gi nu ne ñaan sunu boroom subhanahu wa mu dëpp nañu ci ak jëf yi topp yi te gërëm ko te sellal ko ci waajtaay tomb yi nga xamante ni moom la ñu tànnoon ni ki comité scientifique bi jëloon ngir waajal guddig laylatul qadr ñu bëgg nafarandoo ak sunu mbokk yi benn tomb bu am solo boo xamante ni moom mooy ghazwatu badrinil kubra fil kitaabatil xadimiya muy xare badar ci biir mbindi cheikhul xadim radiallahu taala anhu te loolu ñu may ma ma jaajëfal bu baax ñi nga xamante ni ñoo tànn euh, tomb bi jëlal ci Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma ak comité bi mu àndal di nosee waxtaan yi ak di waajal guddi gi euh, su noppee itam ñu ndokkeelaat leen jaajëfal leen ci tomb bu am maanaa bi nga xam ne tànn nañ ko te dayo ji foo kom mën a takk rek mu weesu ko ngir lu bare bari bare bu ci njëkk mooy jamono jii ñu ne ak barab bi ñu ne ndax kuy waajal guddig laylatul kadr te mu nekk ci biir weeru koor muy guddi yi nga xamante ni ni ko alquran waxee moo gun moo gën junni guddi waaye nag nga koy defee ci keppaaru soxna Maymunatu Suxra waxtaane ci lenn ci badar ci boppam donte sax waxaguñ ci sëriñ bi waaye badar rek loolu am na lu muy wundu ndax ku wax soxna may wax pasteef ak bëgg lu baax Laylatul Qadr gi benn la ci suñ la waxee nam ko tàmbalee woon ba fi mu mujjee ci ak dundam euh, beneen bi itam mooy jamono ji nu toll ak jafe-jafe yi nga xam ne askan yi ñu ngi koy dundu ci fu ne ñu waxtaanaat ci Badar ak lañ ca mën a jànge ca événement ya ca acteur ya ak ca barab ba day lu am solo loolu itam ci jamono la barab bi ñu toog itam muy Touba dafay dëppoowaat ak njàngaleem Badr ndax sëriñ bi radiyallahu taala anhu moo ko waxal boppam ba koy tànn moo Daaru Salaam da ci am yéene ju sell ngir yàlla ngir jaamu yàlla ak ngir dekkal sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa waaye aada delloo ko fi wala aada indiwu ko fi ndax du foo aw askanam nekkoon du caagii ne mbirum àdduna ci fu mu mën a bayee wala fu mu mën a sàmmee wala yeneen moo ko fi indi itam kon passif boobu ak dogu googu ak jom jooju ak ngor googu dafay dëppoowaat ak laylatul qadr mooy kon barab bi ñu ne di Touba ak kër gi nu ne ak nag jamono jii nu ne ci biir weeru koor wi ak sax ci fi jamono ji tool boole ci nag tomb bi ci boppam muy li jëm ci badr dafa amaat lu am solo loo xam ne dana mat nu di ko jàngat ci waxtu wu ne benn ndax badr dafay bari ay njàngale yoo xamante ni daf koo am ci ni ma ko woon sànq ca xew-xew ya ca xew na mu tàmbulee ba na mu sottee te lenn na di danañ ñëw incha allahu taala muy loo xam ne ci wàllum nose ma ne sa cee jàngat ci wàllum ruux mënees na cee jàngat ci wàllum nekk ci biir askan wi itam mënees na cee jàngat yu bëree bëri nit waxagumab jullit sax waaye ku dulub jullit danañ ci jàngate kilifa na muy nekkee ak ñi yilif wala ñi ñi ñu yilif itam ni ñu nekkee ak keleen yilif nose ga mu war a àndal ak itam jom la mën a may nit ak dëggu na mën a may nit ak engagement la mën a may nit beneen bi nag mooy xew-xew bi ci boppam ak li mu am dayo ci lislaam nga xam ne dafa mel ne dafay laytaay lu baree bari ci état islaam ak ndamal lislaam ca la ca topp euh, ndax nun ñëpp xam nañu ne mooy xare bi nga xamante ni moom la jullit ñi njëkk a jàmmaarloo ak yéefar yi la ko waraloon ak gannaaw ba ni ñu ni ñu gën a te am euh, confiance ci seen bopp ak ginnaaw bi itam liñ leen gën a bàyyee xel ngir yooyu yëpp nag nu teg ci nag sëriñ bi moom njàngale mi nga xamante ni moom la ci jëlee ci xew-xew badru bi nam ko jàngate moom ci boppam ak njàngat moom mu itam nam ko gaaralewaat ay taalibeem won leen ko wax leen ne lii moo mataro yi ngir maa ngi nii ku bëgg a dem na jaar foofu kon yooyu yëpp tax na tomb bii di xare badar ci jaare ko ci njàngaleem sëñ Tuubaa di lu am solo Euh, suñ ko tàmbalee bu njëkk bi mooy Badr ci boppam dafa bari ay éléments yu ko composé fu nekk ci ñoom mën nañ ko fa jàngat maanaam Badr ay yu daje la yu bëree bëri Badr euh, jamono la Badr barab la badar ay xew-xew la maanaam ay événement la euh, Badr ay acteur la mooy ñu ko doon def waaye itam Badr am njàngat mu am solo la ak ay meñ meññeef yu am solo yoo xamante ni am na ci Badr loolu moo ko moo ko moo boole ñuy wax badar ndax mbir mu ne euh, lu xew ba tax mu am solo lenn nag kese mën naa tax mu am solo waaye nag badar dafa dajale yu baree bëri yoo xam ne bu nekk ci ñoom rek dana ko jox gëdd dana ko jox dayo bu rëy rëy sunu ñëwee ci bu njëkk bi mooy badar ak euh, barab bi barab bi ni ñu ko xamee Euh, ci euh, jaziratul arab la maanaam ci arab yi diggante Madina ak Cham ci loo xamante ni xam nañ la ko waral mooy dafa am ñoo xamante ni ñoom lañ doon kar maanaam jullit ñi ñoo doon kar yéefar yi nga xamante ni dañoo génnoon seen njëgg ngir ni ñoom bari na seen alal joo xam dañ leen a génnee màkka nangu seen alal ñu doon fayu te loolu itam di loo xamante ni lu légitime la danañ ci ñëwaat ci kanam euh, ñaareel bi mooy jamono ji suñ fàttali ne suñ fàttalikoo ne Badr mu ngi am ginaa fukki at fukki ginnaaw fukki weer ak juróom-ñett ci gàddaay yu yonent bi sallallahu alayhi wa ndax yonent bi sallallahu alayhi dafa génn ca weeru gàmmu ba gàmmu ga desee ca déwén sa ñu teg ca euh, rak gàmmu rakaat ji gàmmu maami koor baraxlu ca koor ga la kon muy fukki weer ak juróom-ñett bi ñi nga xamante ni moom la ñu gàddaaye ku wax gàddaay gi xam jun jullit ñi la ñu daj ak génn seen kër ndey ak seen kër baay bàyyi seen alal am na ñoo xam sax dañu leen doon dàq jotuñu leen ñenn ñi dañu leen a jot ñu bàyyi seen alal bàyyi fa seeni kër ak seen lépp ci nag dara lu ko lu may dañuy woote ne yàlla kenn la amul benn buur bu dul moom te ñi leen ko def itam di seen i mbokk ndax ñoom ñëpp ñoo bokk seen i maam loolu mm, euh, lu am sama loolu ci sama solo la ci jamono jooju nga xam ne alquran sax waxal na ko boppam udina lilladina yuqaataluuna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim la qadir dane alladina uxriju min diyaarihim wa amwalihim allah uxriju min diyaarihim am nañ seeni kër fa ñu xamoon miin ko lépp ñu xatal leen fa bu ndoxataal leen fa ba ñu génn ko amoon nañ seen alal foo xamante ni moom lañ moom la ñu gënoon a xam ak lañ fa liggéey lépp ñu génn ko loolu maanaam day lu am solo loo xamante ni kuy jàngat badr ma sa ko jàngat ndax su ngeen fàtte ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba muy wax ak ñoom danaa leen xiiro xiiro Quraysh génn na maanaam jëggum Quraysh génn na léegi nañ leen ko dogaale mën na am yàlla jox ñu ko su ko defee mel na ne danañu rek danañu fayiku lenn ci loo xamante ni sunu alal la woon te ñu bàyyi woon ko foofa ngir bu ndoxataal gu ñu bu ndoxataaloon wala ngir dañ koo nangu ci ñun wala ngir booba dañ koo tëlut ngir fitna ju ñu nekkoon ba génn ci réew kon loolu mooy euh, jamono ji beneen bi su fekkee ne jamono ji jàll na euh, barab bi jàll itam dafa am euh, ay événement yu ji xew événement yu bar bari yoo xam ne dana feeñ bu baax a baax waaye lépp itam am njàngat la ndax bi ci njëkk mooy ni ñu ko waxee nii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba muy génn génnul woon ngir xare dafa génnoon rek ngir dogaale am njëg moo xam ne ñu nangu woon seeni alal lañ ñu bëgg a fayu wala boog ñu bëgg a rentrer leen ci seeni droit te booba mu xamoon na ne njëg ma ñeen fukki nit dong ñeen fukki góor dong ñoo ko ñoo koy protéger ginnaaw bi nag la leen ca fekk fekk leen ca te la leen ca fekk mooy ñee yëg nañ li xew yëg nañ ne yonent bi sallallahu alayhi mi ngi leen di dogaale ñu daal di yónnee ñoom itam ngir ñu wàllu leen wallu ga nag moom ak na mu demee ndax ña fa ñëw di leen wàllu si ngir bëgg a jaamaarloo ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam daanaka mën nañ junni nit te yonent bi sallallahu alayhi di ñetti téeméer ak fukk ak ñett wala fukk ak ñeent wala fukk ak ñaar ci euh, version yu tey kon loolu mooy événement bi ak la ci xew loolu nag suñu ko xamee ba noppi nag ñu doog a xam nag sëriñ Touba radiyallahu anhu ak moom nin nim ñu gaaralee eh, xew-xew bi sëriñ Touba ci moom lépp lu laal yonent bi sallallahu alayhi wa da koo fonk lool da ko jëfe bind ko yara ci itam loolu jërut ñu koy wax ak a waxaat loolu nag foofu la ñuy mën a duggee bunt boobu ci la ñuy mën a duggee wax lan moo tax sëriñ bi mu fonk eh, Badr xew-xew ba surtout ak nit ñi itam ndax ñaar yooyu bokkuñu waaye yëpp la fonk euh, bi ci njëkk mooy sëriñ bi euh, dafay xadimu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam di ko liggéeyal ci benn mooy jàngale sunnaam tasaare ko ak yara ci jàngale sunnaam nag boole da ci bokk nag jàngale lépp lu aju ci moom muy bi mu gënee jamono loolu di benn muy euh, ba mu fa mu jaar bokk na ci lii ndax rañaan bi am na ci mm, gàddaay bi am na ci badr ji am na ci euh, ak yeneen ak yeneen waaye itam noonu la def ci saxaaba yi moo tax euh, li mu wax lu leer la dafa wax ne ayaa xaadima almuxtaari laa tansa saxbahu fa man yansahum fal madxu madxun muxata'u daane yow mi liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa mi ñu tànn ngalla bul fàtte mm, ñam daa àndal muy saxaabaam ndax ku leen fàtte taggam yi dafa mel ne njuumte am na ci kon ci cadre boobu lañuy ñu mën a gise ni mu indee yeneen yi aju ci yonente bi sallallahu alayhi wa ak ñeneen ñi aju ci yonente bi sallallahu alayhi wa kon foofu la ko jaar foofu nag bu ci jaaree itam am na yu baree bare bari yu mu indi waaye bii nag da cee gën a fees muy badar ci boppam ndax sëriñ bi waxuma la sax xew-xewu badar bi waaye nag niti badar ñi ak ni mu fese ci am mbindam day loo xam ne ginnaaw yonent bi dara fese wu ko ci euh, benn tudd na leen ci ay barab yu baree bari kañ leen bàkk leen ñaanal leen ñaan yàlla ci seen daraja wane leen comme euh, exemple yoo xamante ni wares na leen a roy waaye itam am na xasida goo xam ne ex ma ñoom rek la ko jagle xasida gu ma sëkk goo xam ne mu ngi tudd na nazmu asmaa ahli badrin kiram nga xam ne daf ko way Euh, tudd ci tur yi euh, ñi nga xamante ni ñoo xare woon badar ci saxaaba yi ku nekk ci moom ci ñoom dalay ñaanal ngërëmul yàlla pare ñaan yàlla ci sa daraja moom la ñuy wax tawassul te itam borom xam-xam yu bare bare neen ñooñu képp koo xamante ni ñaan na yàlla ci seen daraja sunu borom subhanahu wa taala mën na ko nangu sëriñ bi boobu mooy nafmu asma ahli badr am na ci yeneeni xasaayid yoo xam ne itam xëy na du ñoom rek la ko jagleel waaye da cee indi badr ci boppam indi ci xew-xew yi indi ci la ko waral indi ci na mu na mu déroulé mooy xew-xew yi indi ci résultat bi waaye nag foofa lu bare ba da caa feeñ ndax bi ci njëkk mooy moom ni qualificatif yi mu leen di jox maanaam mandarga wala na mu leen di mandargaalee ñoom saxaaba yi ba ci ñi nga xamante ni ñoo demoon Badr bu njëkk ñoom saxaaba yi lu mu leen wax danañ am ay gaynde leen tudd ci lu bëree bari ndax usuudun ala al aada masaabihu wa kullun shujaaun rasa dil kufri yajzau usudun mata yaqsud lahum dhu tajarruin yabu jubbu an wa yumhat tajarru waxaat ne en tout cas usud moom bari na lool lii qaada ahla badrin il usuuda man zaxzaxa alwaashiya walxasuuda wax na ne ñii nga xamante ni ñooy saxaaba yi waxagut ba xam badr laa ngi ci yi rek en général ay gaynde lañ suñu jàkkaarloog noon yi waaye di ay leer ci jamonoy lëndëm ku nekk ci ñoom jàmbaar la joo xamante ni moom su jàkkaarloog niti kéefër yi ci xare day dagg boppam ñooy gaynde yoo xam ne képp kuy jaay dëgër bopp kuy jaay fit wu dëgër su fekkee ne dem na ba jàmmaarloog ñoom day mujj dellu ginnaaw euh, yambare lool su ko defee lam doon wone ci jàmbaar ak ci fit wu dëgër day mel ne day effacé wu musu koo am kon loolu benn la rek ci ni mu leen ni mu leen di misaale waaye nag ñoom ci seen biir ñëpp suñu noppee nag ay saxaaba ñëpp jàmbaar lañ li mu wax comme li waxoon ne ni amar rijaalu lahum majaalu waaye nag ñii nag dañ cee rawati ndax li ma tuddoon sànq euh, ci euh, xew-xew bi ak li mu sos ci ginnaaw bi soo suñu delluwaatee ci euh, masalan ci jazbul qulub da ko da ko da ko ciy wane يوم به قد غفر ذنوب من قد حضر قتاله رب الورى كبيرة كالأمم mu ne mooy euh, Badr mooy bis boo xam ne ña nga xamante ni ñoo teewoon xare ba sunu borom subhaanahu wa mi boroom bindeef yi jéggal na leen seen bàkkaar yu euh, mag ya ak bakar yu ndaw ya te loolu itam euh, daf ko jëlee ci ab xadis boo xamante ni xadis bu siiw la ci al Buxaari mooy bi nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, bëggoon dem màkka kenn ci saxaaba yi xam naa am na fa aw nit mu bëggee leen ko xal ne mi ngi ñëw biñ demee nag ba loola am ba ñu xam ko xam ne kii moo ko def am na kenn jëru sax mun na ci kenn mooy Seydina Omar ibnu Xataab radiallahu anhu moo wax yéen sax ne ko may ma ma dagg baatub naafeq bi waaye yéen sax wax mu ne ah yéen ku leen ku yàlla yërut waa badar ne leen def leen lu leen neex jégal naa leen laala allah talaa ala ahli badrin fa qaala lahum imalu maa shitum fa qad gafartu lakum kon mooy li sëñ bi di wax yowmun bihi qad gafara dunuba man qad xadara nga xam ne sëñ bi dafa wone maanaam ñoom seen taxawaay ba ak la nga xamante ni moom la jur wa dalika alyowmu falaax li di ihtidaain wa rabaax li di irtiqaain wa salaax li kulli shaxsin muslimin maanaam ab julit bu ne bis boobu may na ko julit bu ne bis boobu may na ko muy xéewal may na ko ak tono julit bu ne nga xam ne ci gàttal mu ne bihi ganina lil jinaan an gazwatin wa an hawaan bihi lana taaba zaman maa qabulil xidami nee na ba bis ba jàllee daanaka euh, moo ñu xeex ba mu jàllee moo ñu dëkk ci xeex ba mu jàllee moo ñu te moo ñu musal ci ak doyadi ak humiliation ba mu jàllee jam sunu jamono tàmbalee neex ñu commencé yaatu nit ñi di ñu bàyyi xel ba mu jàllee ca lanu yàlla nangul sunuy liggéey nga gis ne kon ñoom saxaaba yi may nañu ci ginnaaw bi julli ñi gën firi waaye itam képp koo xamante ni amat na ci lislaam dara amal nga leen njukkal ndax yonent bi saa sallam ñaanam yooyu mu doon ñaan daatal ñaari euh, arme yi di daje dafa wax ne allahumma in tuhlak hadihi al isaba lan tubada baada al yawmi abadan yàlla ñii day suñ leen alakee deesu la fi jaamooti ndax boobu ñoom ñoo fa newoon waaye nag sëriñ bi ngor googu lay wone ak muy misaal ci lële euh, ci biir itam niki noonu sëriñ bi ginnaaw ba mu waxee lii mu am na ay détails ci yum dugg matalan su fekkee ne ci mim yi la euh, tudd na li ñuy wax char maanaam euh, diisoo gi yonent bi salaa sallam doon diisoo ak nit ñi ak saxaaba yi daatal ñuy tàmbali xare bi ndax wax naa ne yonent bi salaa sallam ba muy jóg ngir xare taxu ko woon a jóg da doon dogaale njëgg ginnaaw ba ab xare fekk ko ca léegi nag ndeem loolu tox ko woon a jóg am na ci ñoo xam ne ci ay kilifa su doon ñoom rek dañu naan topp leen sama ginnaaw rek déglu leen ma lu ma def na ngeen ko def déedéet dafa toog ak ñoom wa baadama shaawaru jaau bi rayihimu wa saaduhum qaala qawlan qad kafa wahama maanaam ñu sax dafa toog ne leen ah man kat dama bëgg nag ñu waxtaan léegi lu ngeen gis Quraysh ngi nii di ñëw ak nangam nangam booba euh, mathalan Seydina Omar Seydina Abubakar ak euh, almiqdaad ibnu aswad wala almiqdaad ibnu amr ñu wax nañ wax lu rafet lool wax xas nañ gëm nun jox nañ la suñ kàddu nun duñ ne waaw ba noppi ne déet demal rek ñoo ki waaye nag yoon saa sallam xam ne comme que ñi moo àndal majorité bi maanaam ñi ci ëpp waa ansaar lañ ansaar mooy ñi dëkk Madina te ñoom terme yi la mu waxante woon ak ñoom maanaam la mu sartante woon ak ñoom jóg di songi nit bokku ca woon moo tax mu a ah gars yi maa leen di déglu de te am nañu wax ba noppi Saad ibnu Muaad ni ko Sëñ Tuubaa waxee wa saaduhum qaala qawlan Saad ibnu Muaad jóg daan ko ah de dafa mel ne nun dafa mel ne nun nga ci jublu na ko waaw waaw mu ko ah, nun day gëm nañ la dëggal nañ la xam nañ li nga indi mooy dëgg wax nañ ne dañ la aar itam ci nit ñi aare sunu njaboot foo mën a jëm lu mu sori sori danañ danañ la topp soo doon xuus ci biir géej gi itam danañ dem ñun boo xam sax dafa jëfandikoo baat bi ñu wax birkul xamaat ngir foo jëm daal lu mu sori sori ñun danañ topp sa gannaaw duñu yoon jox duñ la seetaan duñu duñu duñ la duñ la bàyyi eh, yow rek ngay eh, ngay jàkkaarloog say noonu daan na ko nee nañu ngéej muy tay tay tay te doon suba ba xam soo kon da nga gis ne ñun ay jàmbaar lañ ci xare affrontation su jotee itam danañ ci def sunu kàttan nga xam ne sëñ bi indi indi na ko indi na ko foofu indi na ci jëm ñeen nat ca ñafa ca ñafa ñafa taxaw misaal leen ca ne mu gën rafete bokk na ci ñeen nat ñooñu mu comme Seydina euh, Jibril alayhi salaam loolu itam muy am lu muy indi ci siira ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba mu ñaanee ba Seydina Aboubacar daal di yëkkatiwaat kaala gi tegal ko ci mbaggam daan na ko doy na sunu borom subhanahu wa taala dana la dana la déggal nee nañ yonent dafa mel ne loxo ne gammutu daan ko bégal Jibril a ngi nii soo gisee ci ñaari wàllam yi sax euh, poussière bi mi ngi ci foofu sëñ bi noonu la ko indee wa fiihimu id waradu xaliluhu lmumajjadu jibrilu naama sanadu fawqa jawaadin cheydami léegi nag mu wax nag nañ ko defee njàmbaar gañ fa ware wa ila alkifaax maa suyuufi wa rimaax xubba salaaxin wa falaax xalfa alimaami alazami maanaam ni ñu amee euh, ni ñu ni ñu yàkkamte woon mel ne ku jëm ci lu neex ñoom ñëpp rek ngir lan bëgg texe ndax dañoo xam ne topp yàlla ak yonenteem jàkkaarloog euh, ay noonam euh, joxe sa bakkan ngir yàlla moo leen koy may noonu la ko sëriñ bi misaalee ak yeneen ay misaal yu bëree bëri yoo xamante ni am na am am na am na am na am na ci biir masalan wa qaatalu man qad naahumu shafiu shufaa xatta alxubaaru sataa bayna jabaanin wa kami maanaam ñoom itam yéen saa sallam waxoon ne dem leen dafa mel ne maa ngi jàkkaarloo gars yi ni ñu leen di nërmeele nii mu ne nag ñooñu nag dafa mel ne yeneen di saa sallam ñoom xel mi amoon dafa mel ne yonent saa sallam na leen ne gaa yaa ngi nii kat yéen dem leen yéen ay gañe noonu itam noonu lañ fa demee ak xel mu dal ak fit wu mat sëkk ba nga xamante ni yàlla euh, dogal na ñu am ca ndam lu mat sëkk loo xamante ni histoire du ko fàtte benn yoon muy nag ay njàngat yu bare bari xëy na njàngat mi ci sëñ bi njëkk wane mooy ne ñoom nombre li ñuy wax quantité mën naa bañ am solo lool li ëpp solo mooy passif li Alxuraan di wax kam min fiatin qalilatin galabat fiatan kathiratan bi idnillah mbooloo mu néew léeg-léeg danañu not mbooloo mu bari lool ci kàttanu yàlla loolu nag mbooloo mu nekk ci dëgg te am ca pasteef tey xaar ndimbalul yàlla lu nekk mën na mën noo cee fekk lool nag dañuy gis ne sëriñ bi nag bokk na ci lim doon jàngal ay taalibeem beneen bi itam mooy euh, ni nga xamante ni noonu lañu ñu nosoo doon benn topp ci ginnaaw yonente bi sallallahu alayhi wa muy topp ndigal nga xam ne loolu day misaal mu am solo moo xamante ni ñëpp war nañ war nañ cee jàngat donte ci wàllum sax adduna la nekk ndax mbooloo mu ànd war nañoo nosu am discipline soo gisee militaire yi euh, wala force de l'ordre en général loolu la ñuy jàngale mooy nosu gi mooy topp ndigal gi di dégg genn kàddu gi su ko defee euh, mooy may nit ñi ndimbal moo leen di may réussite te loolu maanaam safaan ba moo amoon ca Uhud moo taxoon jafe-jafe ba am mooy ñàkk a nos gi wala ñàkk am discipline bi beneen bi itam muy wane ne li am solo mooy yëkkati kàddug yàlla dem ceeg sa bopp li ci des nga bàyyi ko sunu borom ndax sëñ bi noonu mu misaalee bis ba ak la ci juddoo ca gannaaw ba ba ginnaaw boobaak léegi quatorze siècle jàll na ak fanweer waaye teewut ba tey lislaam a ngi yëkkatiku ku leen tudd tudd leen li leen am solo mooy doomu aadama ji na jëf sabablu xaar yàlla te sellal ko la ci des yàllaa koy sottal ko yu bare bare la yoo xamante ni mënees na ko jàngate ci ci euh, mbindum sëriñ bi waaye noonu ñu ci mbind mi itam noon la doonoon ci yar bi bi mu doon yar ay taalibeem ndax doon na ci doy sëkk rek li mu leen daa wax danaa saxaaba yi ñooy seen baay ci diine dañuy wax rek ca Tuubaa ju metti ja ak euh, léeg-léeg nit yi caddoo yi leen daa sonale di leen natt natt yu metti yi di leen tag yu lu ne suñ masaa ñëw sëñ bi sëñ bi danaa leen muñ leen yéen day saxaaba yi day wax leen saxaaba yi lañ daj daane du ngeen leen dab xanaa xamu leen ñooñu ñooy seen baay ci diine kon euh, day loo xamante ni suñ fi doon nekk ba suba di ci waxtaane duñ fi jóge waaye li ci am solo rek mooy day lu am solo loo xamante ni njàngat yu baree bari la loo xam ne sëriñ bi dañu koo dajal leel ci ay mbindam ak ci ay tombam la nga xamante ni moom fu mu toll nit ñi mën nañ ca jariñu ci seen diine ak seenu nekkin mu koy fàttali taalibe yi mu bind ko di leen ko wax di ko dund moom ci boppam li nga xamante ni moom la ko ci yàlla fayee mooy moom ñoom rek la ne woon dann dafa bëgg a mel ni ñoom dafa bëgg yàlla yëkkati ko ci seeni daraja ba sax mujj na euh, sunu borom subhanahu wa taala may ko ci loo xam ne xar baax la ci di ànd ak ñoom ca na ko yàlla dogale ca la joo xam ne mën naa am sunu xam-xam du ca egg waaye loolu lépp itam li ko ko may mooy noonu mu mel ci ñoom ak noonu mu liggéey yoon saa sallam jaar ko ci ñoom ak noonu mu leen tagge ak noonu mu leen ñaanale loolu mu leen di sàkk ngërëm ak noonu muy won nit ñi di leen joxañ fu ñu toll na ñii ñooy suñuy roywaay ñii ñooy mata topp seen gannaaw loolu moo ko ko may kon noo ngi santaat baax a baax ci mujj gi di sant mboolem ñi nga xamante ni ñoo ñu doon topp di sant sëñ Cheikh Abdou Lahad ak ñi nga xamante ñoom la àndal ci comité scientifique bi nga xamante ni ñooy waajal bis bi di ñaan wala guddi gi di ñaan suñu borom subhanahu wa taala ñu egg ci ci ak jàmm suñu borom dimbali ñu ba ñu dundal weeru koor wi ni mu ko digalee te mu gërëm lépp te sellal ko wasalaamaaleykum wa rahmatullah